Thank you. neexul. mais am na ku ne moom day jaay ay de. ku gën a teg feeñ ci moom. ah bëri teg ko ci kawam. mais yor na ay oto. ah da nga naan ay kalandoo kalandoo. ay kalandoo la yor. Ah ah. oto man oto bu ma nee yor naa oto damay wane oto yi mu taxaw 4 x yi taxaw. waaye duma gàddu ay kalandoo mbott nga xam ne suñu jamonoy maam Senghor la woon nga ñëw taxaw naan dama yor ay oto Sans Limites TV votre site d'information mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar amaat tey nag ñu ngi nga xam ne moom moo ci Cissesse kan moo woote Mamy Cobra la moo woote foire bu mag euh, foire boo xam dajale jigéen ñi nga xam ne dañoo am jëm lool nangoo liggéey ñëw fi nga xam ne moo ci foire bi ngir daan seen doole alors Mamy ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar maa ngi lay fay mon frère donc nuyu lay seetaan maa ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi nuyu sénégalais yi di nuyu ñëpp di la ñaanal jàmm ak salaam barke d'accord bëggoon nañu xam exactement nak nga def ba taxawal li nga xam ne moom mooy foire bi noo du man maa tëgg foire bi de ma Mami Events la Mami Events waaw Mami Events la man dama ñëw rek pour exposant mais man tëgguma foire bi d'accord léegi naka nga ci li nga xam ne moom la Mami wootee lii dafa neex macha allah ndax da ngay xëy di jaay soo dee jaay sa place cinquante pour cent foire cent pour cent ndax ñëpp dañuy ñëw da ngay gis ku la romb bëgg la lool jënd nga gis koo xam ne da lay bëgg a dooleel jënd macha allah foire dafa neex daal d'accord mais mbaa yéen ci gis seen bopp rek. macha allah neex na ñu ngi jaay ba pare teg ci ku ne di la romb di la may xaalis lu ne la ñuy def daal wax dëgg yàlla. d'accord ñu daan gis moom mooy jigéen ñi nga xam ne maanaam dañuy bàyyindiku mais jamono ji nga xam ne moom la ñu toll jigéen ñi dañoo gën a takkandiku di daan seen doole di liggéey lan ngay wax jigéen ñooñu ak lan ngay wax itam ñi nga xam ne dañoo bàyyindiku bu ñu bàyyee di ko dañoo ñàkk fayda waaye oto yeeg oor yeeg kër yi baaxee building yi ku ci bëgg a tabax di nga génn dem liggéeyi ndax liggéeyi ko yor góor mënut a yor kenn ndax léegi góor ñi ñuy bëgg benn jabar ñaari jabar ba juróomi jabar ak boole kooka yi ñuy doxaan yow yaay mënal sa bopp yaay satisfaire sa bopp si benn góor satisfaire tul benn jigéen ndax li nga bëgg la sa morom bëgg yow yaay génn liggéey daan sa doole nekk sa bopp bu ko defee bu la góor defalee baax na bu la góor defalul baax na bu la yaay defalee baax na bu la yaay defalul baax na nga xam ne bu boobaa doo soxor doo iñaan doo teg kenn bët mais boo amulee ñàkk da ngay soxor iñaan tegaate bët wax lu ñaaw nga se mais boo xëyee di liggéey yor sa xaas sa basa di fees sa xel day daal da ngay gis ku la saaga sax da ngay retaan d'accord euh, euh, mami fan nga teg sa bët exactement waaw man nag dama visé fu loin ndax baa xam nga ne man coiffeuse la coiffeuse laa waaye dama dem ba xeeb métier bi ndax dama ne business moo gën a gaaw ndax 5000 10 000 yi ngay xaar da ngay jënd benn bal teg ku ñaw ko ay voile ci jour bi nga jaay ko am sa benn 300000 xam nga salon weekend ba weekend yi lay dox xam nga ak élèves yi ngay jàngal ak yooyu mais business su jaay moo nekk loo xam ne dafa neex dafa am doole macha allah surtout maa ngay jaay ñëpp xam la. nga doon ku public même bu dee ñaari nit sax ñu xam ne dina bëggee loo jaay dañuy jënd ndax bu dee coiffeuse nga fa wa dëkk doo nga ñëw ñëw ñëw ci yow mais bu dee da jaay international ngay jaay taman dama bëgg a doon international moo tax ñaan naa la di wàcce ay conteneur building yi ci réew mi ma di ko dégg ñaan naa yàlla am ci daal yàlla baax na d'accord lan moo la gën a neex bi jaay bi nag mooy yi may jaay yére yi yére yi moom dafa dox tellement da ngay gis waa Amérique am ay mbootaay sama may yooyu ma leen di nuyu de passage am ñoo xam ne ndeysaan dañ mëgg Mamy Cobra bu ñu mee ay mbootaay wala am ay xew man la ñuy yónnee xaas bu bëri ma ñawal leen ay hôtesse jëndal leen ay palma ndax ñoom ñu rafet rek lañu sol sama yaay yooyu waa Amérique waa New Jersey maa ngi leen di nuyu bu baax ak waa Sweden waa Amérique waa diaspora bi daal maa ngi di nuyu ma leen fàtte ginnaaw. d'accord alors Mamy mënuñu jeexal li nga xam ne moom la Bijou organisé woon mu neexoon lool euh, lan moo la gën a neex ci loolu ak lan moo la ci gën a frappé. non Bijou Ngoné moom li mu def coomo mënu ko cuune mënu ko ku ndayam am ku am ngërëmu nday sa nday gërëm la dong ko man ndax dajale ñoo xam ne macha allah tarkaal la danoo téye réew mi seen digg loxo xale yi bëgg leen ndax ku soxor doo ngay bañ loolu mais ku xam dina xam ne xale yi bëgg nañ ñu ndax ñu ngi leen di bégal xam nga sunu moroom yaa ngi soko soko siki saa ñun ñuy jaay fi dof di fecc di ubbeeku di ŋàppaaral di kaf rien que pour satisfaire nit kon macha allah nit ñi ñun lañ Bijou Ngoné tëgg loolu gën ñoo dooleel ba pare wan ñu ñun ñooy kan wan ñun ci suñu caméra yi dañuy kaf mais ay jigéenu valeur lañ ndax ku ci mel ne man wala ku ci mel ne maam wala ku ci mel ne keneen ñun ñëpp am valeur macha allah li mu tëgg moom cooma mënu ko te mi ngi tëggaat nag lu ko gën a ganaaw non Sénégal day wàcc dinañ dem ba yu bëri dootuñ ko dal nañ sant rek gis nañu dabaay mu def lu keroog tey mami events ñooñu itam looy wax ci ñoom non dabaay moom nee naa ko tuyee le meilleur les autres ailleurs mami events xale la ndax lii maga ko man xale mënul lii tëgg lii mu tëgg ba pare teg ci defal ku ne teraanga ñii da leen a may ñii da leen a jaay Mamy Events tamit dama koy ñaanal mais Dabaye Baar kenn moom man Dabaye waxuma sax yi tëgg mais Dabaye lu baax li muy def ci nawle man moom ma njëkk a neex Dabaye boo waree am cinquante mille du la ko xañ bu la woowee jotoo ko sax day jaral mu yónnee ndaw wala jaral mu fexe yow noo ko jotee woon nu mu la jotee yow ba lu sare cinquante millions nga lekk ko lekkul yi fi kenn Dabaye Baar yàlla na ko yàlla bàyyi borom këram yàlla may ko ay yu takku la fan la faax ku koy xaar ci échec wala ku koy xaar ci daanu yaa ngi nax sa bopp ndax ñu ne àddina xol mooy da da bàyyi elle a un grand cœur vraiment dëgg yàlla. nooy jeexale li may jeexale Mariam Ndoye mi leen fi yebal di Fatou Mbaye di sama jumelle ba ma ñëwee ci foire bi ba tey 4 jours mooy indi boolu añam Ndoye Maari Mariam Ndoye borom fukki penc ak ñaar yi màgget nga bokkal yow mënu ma la fay dama lay ñaanal yàlla teraanga lañ àndee kenn mësuñoo àtte mu doon sama xarit may ñaanal sénégalais di ñaanal ñëpp ak sama yaay yàlla na gudd fan di ñaanal sénégalais yàlla def fi jàmm yàlla def fi sutura képp ku ñàkk yàlla may la teral la ba nga yëg sa bop ci barke Seydina Mouhamed ñu ci bëgg alors bienvenue au foire ba tey ñi nga xam ne ñi ngi fi nga xam ne moom mooy ci euh, CICES ki woote nag di Mami Events ay jigéenu jàmbaare indi ay différents produits maanaam produit bu nekk rek boo ko bëggee da ngay ñëw fi nga xam ne mooy ci foire bile alors maman ñi ngi lay nuyu bëggoon xam ne exactement lan nga ñu indil ci li nga xam ne mooy foire bi Mami Events daal di woote ngi leen di ziar bu baax a baax waa Saint-Louis bi di kontaan ci yéen di wax ne yéen yu tubaarikàlla image bu ngeen wanewul baaxul ñu ngi fii nag tey jii si foire bi mami mami sama doom ji indi ñu fi ñuy jaay mu woo xale na kaa leen liggéey te ñun liggéey la ñu xam tubaarikàlla ñu daal di ñëw rek sama waa ji maam Ndiaye Savon ne ma kaay rëq ma daal di rëq tubaarikàlla macha allah loolu rek la indi ay gej yu bër ay yéet lépp daal produit halieutique lépp dama koy jaay. lan moo tax nga nga choisir waa géej gi dafa neex nag tubaarikàlla ndax gis nga géej ceebu géej yes laa añee léegi ma yuux xale fecc taxaw ci kaw sées yi tubaarikàlla géej ju bër boo ko bëggee fii géej géej ju bër dafa neex te dafa riche kaa bi lii rek la. non non maman man bëgg naa xam exactement. géej yi nga xam ne moo ngi indi lan lañ ko defaree ba Sénégal yi bëgg ko. waa géej gi nag tubaarikàlla lañ naan beurre original bi lañ jël géej la ma dem dëkk bu nekk ndax man damay dem Diaobé damay dem Casamance damay dem Mauritanie ba maa ngi waajal Guinée incha allah fépp fu produit baax bu nekk fu mu nekk rek damay dem jëli ko indi ko qualité bu baax paañ tuufa yoxos dañ koy napp léegi génn tojal ma ko ma def ci ay chiche daal di indi. d'accord alors naka nga gisee foire bi ma mi wootee. maanaam jigéen ñi bàyyi li ñu doon def maanaam topp xew yeeg tey koo ci gis mu ngi daaj taabalam ubbi bitigam woo ay nit ñi daal di liggéey nak nga gisee loolu waa loolu dañ koy rafetlu tubaarikàlla ndax nee naa lu dul liggéey liggéey ko gën tubaarikàlla war di taxawaar rek bu weer bu dee du la fay dara liggéey dong moo lay may dara boo bëggee bokk ci réew mi boo bëggee bokk ci nit ñu baax ni da ngay liggéey am jom am fulla am personnalité bàyyi taxawaaru bàyyi détail ndax nag tubaarikàlla ku gis ni man xeebu ma benn métier yaa pas soo ndax man ku wax ma ne la men la meer forox tubaarikàlla nga ma jaay nag qualité bu baax sama client bu ma jaay boo gisee sama bagage kontaan bi rek la. d'accord nga ni maam Ndiaye moo la dagal fi waaw. ban témoignage nga ñu mën a defal ci moom. waaw dafa baax tubaarikàlla ndax dafa jël 10. daa di may woo téléphone daa ma sama waa ji ma daggal la mu daggal ma nag tubaarikàlla ma lal ba mu neex bëri doole lal ñaari taabal bu ma lalee jaay bu ma gestoo client ñëw ma ne ko yaa tax ma jaay ndax nag man lu ma waay defal rek dama koy wax ndax tey jii nii mënoon na maa seetaan bu ñëwee bu ñëwee si la foire bi day jaay de waaye dana damay woo sama xarit bi moom tam mu ñëw dëkkal boppam loolu dama ko ci saluer mu nekk geste bu noble bu ma defal te nekk na tubaarikàlla du ma ko fàtte li may wax saa ne rek sama xarit la sama jumelle la te li firndeel na ko am boobu lu mu am may ma fu mu jëm yóbbu ma lu mu xam wax ma loolu rek la. bi mbaa mi ngi dox rek. waaw ñu ngi ciy sant yàlla nag client yaa ngi ñëw nank nànk mais ñu ngi ciy sant yàlla tubaarikàlla waaw waaw xale xale yaa ngi ñëw de. ñu ngi jaay de. mama business. waaw mama business mooy tur bi. jaay géej beurre crevette ah jaay tuufa jaay paañ pour lépp produit bu nit yi soxla ah du ci ci gédége lépp dañ koy jaay lépp dañ koy jaay fii si fa ngay jeexale waa di sant ñëpp di ziar ñëpp di kontaan sama fans yi ñiy déplacé wu ajak ak ñëw di jënd si uniquement dañ la bëgg xam nga di nuyu ñëpp di nuyu suñu waa kër ñëpp sama rakk yi ma fi indi ñu may jaay le aw ma seen fay daal kontaan naa bu baax merci voilà mbokk yi ba tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci foire bi Mamy Events daal di ko woote ni nga xam ne nag ay ndaw lañu xarañ lool bëgg lool seen dëkk itam di yëngu ci wàllu yu ni mel ak jaay ak jënd ñëw fi nga xam ne moom mooy ci foire bi alors euh, Zal ñi ngi lay nuyu bu baax di la maa ngi lay fay di la ziar di la di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñi may seetaan yëpp di leen ziar di leen jox wàccu seen wàccuwaay di nuyu mami mi nga xam ne moo organisé yëf yi. d'accord alors ñu bëggoon a xam exactement rek avant ñu ñëw ci li ngay jaay li nga xam ne moom la mami organisé naka nga ko gisee. waa li ma mi organisé moom lu dul rafetlu ko rek laa gis ndax lu rafet la ndax Sénégal bari na ay jaaykat te amuñu fu nu ko jaayee kon day rafet ma mi organisé genre yu mel nii ñu bari dañ ci gis seen bopp rafetlu ko rek laay def nag macha allah waaw. alo alors euh, li ñu daan gis moom mooy jigéen ñi dañuy bàyyiliku wala ñu nekk ci loo xam ni xamuñu ko mais depuis boobaak léegi gis nañu dabaay mu organisé li ñu mel tey mami nga gis jigéen ñi am jom lool takkandiku di jaay. di nekk ci maanaam dem ba nekk au devant de la scène ñu leen di woowee ay entrepreneur loolu itam naka ngoo ko gisee. waaw loolu rafetlu ko rek laa gis ndax euh, defe naa réew mi ñu nekk góor baax na jigéen baax na am na jigéen yoo xam ne lu góor naan bu ma xëyee def ko ñoom balaa ñoo tëdd rek dañ koy daal di def moo waral jigéen ñi da ngeen gis ñuy daan seen doole am jom nangoo liggéey macha allah jigéen ñi moom maçon spécial. danoo baax macha allah dañoo nangoo liggéey daal. d'accord tam yéen ñu gis leen ngeen indi seen i exposition boo ñu ko doon détaillé tey euh, lan ak lan la doon. suñu exposé nag man maam laa àndal maam def taabalam di jaay ay diwam ak saabom daggal mam ñaari taabal na ma saal ma ne ko am na ma tegal say say say caleçon nga jaay ko ba mu neex bari doole ndax nag nit nit ki ba lu dul liggéeyam tee defe naa man caleçon yi maa ko valoriser man saal mbay. caleçon yi xale yi sañu ko woon jaay sañuñ ko woon direct man maa ko valoriser ma teg sama table di jaay samay caleçon maam teg table moom di jaay ay diwam di jaay ay saaboom ay bagage wu lee de daal mooy loolu. bëggoon nañu xam sa diggante ak maam Ndiaye Savon lan la seen diggante bi. waaw suñu diggante nag man ak maam comme li ma koy taxa comme chaque jour ni ma koy waxee rek lënd ak maat la bos doxul ci diggante bi ndax maam du du liggéey moonu boole man ak moom danoo nekkoon ay xarit depuis avant liggéey bi di am tur bi di am boobu laa nekkoon ak maam loolu moo tax sama diggante ak maam nit ñu bari na duñu comprendre dañuy foone bës bee nu boole wala succès bi mais damaa bëgg xam ne sénégalais yi xam ne man ak maam bi ñuy am boobu tuddul maam tuddul maam Ndiaye Savon turam dëggantaan la tudd ñu yàgg man ak moom boobu sëñ Fallou judduwul yu baree baree baree bare man ak moom ñu dund ko. moo tax succès bi boole wu ñu daal man ak moom dañoo yàgg yàgg moo nu boole. d'accord gis nañu ku nekk di def témoignage ci moom yow mi nga xam ne yaa yàgg moom wax nga ko ba ngay xam maam Ndiaye Savon tuddul sax Mame Ndiaye Savon ban témoignage nga nga ñu mën a defal ci moom. waaw maam rek témoignage bi ma mën a def ci moom bari na ndax boo ma doon laaj ci maam yi defe naa fii ba suba du du du ma pare waaye xam comme lu duuf ci nag bi xajul ci cin la ma leen di wax lu tuut te bariwul rek ne leen sama diggante maam moom ah nit ku baax la daal vraiment. nit ku baax la nit ku yàlla baaxal la nit koo xam ne alala boole ko kenn nit koo xam ne bëgg na doomu aadama cap foore ambiance liggéey la xam waa loolu daal laa xam ci moom vraiment. d'accord looy jeexal waa du nuyu ñëpp ak di ziar ñëpp di wax ni sénégalais ñu ñëw. tubaarkaal li li ni mel li na li mami def nii dafa baax ci réew mi ndax xale yu bari ñu ngi bëgg liggéey am seen machine xamuñu fu ñu koy jaayee kon genre yu mel nii day rafet ñu di ko def sénégalais di ci gis seen bopp góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw bi ku ci ne tey ji yaa ngi teg sa table di xool li nga xam ne moom nga moom di ko jaay moo tax nag dama koy rafetlu rek te bu mu fi dëgëj daal na fii gën a bari ndax bu ko defee ñëpp a ci gis seen bopp macha allah kontaan naa maa ngi leen di fay di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di am contentement ngeen ñëw fii. ñu ñëw fekk la fii nga xam ne moo ci foire bi ngi indi ay livres yu doy waar nooñu ko mën a décortiquer benn par benn. waaw da ngeen ma fekk ci lu ma mën ci sama domaine. ndax nee naa la bu dee lèvreuse bu meilleur si man la fekk baax ndax nee naa la lèvreuse bu 10 000 bu 5 000 c'est pas évident nga gis ko parce que man damay jaay partout dans le monde loolu moo tax ma ni pourquoi pas du ma ñëw si vente privée y nga xamante ne day am ci foire yi di dëggal sama bopp ndax ne naa la booy jaay lu baax àddina Europe ñëpp jox la bopp il faut nga wane sa bopp ñëpp xam yow yaay kan. ñu ngi mais Sonia mais mais. <laughs> dafa dëggal boppam nee na day dem partout dans le monde waaye day ñëw Sénégal itam ngir indil leen produit yu baax. waaw mi ngi noonu en plus yamuma si lèvre rose kese ndax nee naa la der bu ñuul bi ma doon dama ci fière en plus dama koy promouvoir parce que être une femme africaine euh, yombul ndax nee naa la tubaab dafa bëgg ñuul sax looloo tax muy bronzé wu kon boo amee der bu ñuul yàlla may la ko da ngay wane beauté bi taaral ko. organisé xale jigéen yëpp ba nañ lépp ñëw di seetaan maam ah. maam yaa waaw loolu moom yàlla def na ko dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur teg ci suñu wasila Serigne Fallou Mbacké mm-hmm. maam gis nga li nga sant tey damaa sant pourtant damaa wattu ji woon de li nga pes ci kaw nag dagaraade laa wat dagaraade maam wala biibal la <laughs> yaay sëñ Fall amati na ndam na ndam ci digg si ses macha allah macha allah mais ñu gis foire bi nga xam ne moom la mami organisé maam nga def ci lu am solo ci côté pipe ci côté sa doole lépp rek muy wane ne maam daal ñëpp la fi nekkal. waaw ñun xam nga ay ay commerçant lañ mais tamit ay jaaykatu diw lañ mais lii dañ ko milieu bi dañ ko tarbiyu te nee naa la nit boo tarbiyoo dara pour yàlla dimbale la ci day gaaw. ndax liggéey boo ko tarbiwul rek doo ci mën a jariñu te lii dañ koo tarbiyu commerce dañ koo tarbiyu xam nuñ koy defee xam nu ñuy liggéeyee moo tax sonnuñu benn yoon am ci la victoire ñu gis nga exposé produit yi macha allah mu rafet lool euh, maam muy firnde rek ne maam marketing ci am la fekk baax. waaw marketing ci man la fekk baax man lu ma def ci réew mi rek am na ñoo xam ne dañ may jépp am ñoo xam ne dañuy mer mais nañ jàpp ni wàllum euh, marketing la parce que nit booy def sa marketing bul am complexe am na ñuy dem ñoom ba dafa ñàkk classe wala dara waaye sant na yàlla parce que ñi am classe la yor moom ngay yor la dawal moom ngay dawal fa ñuy tëdd moom ngay tëdd kon sant yàlla. mais maam dama dégg ne produit day cereel yaram te yow sa yaram cerewul. gars yi di wax di yàq. waaw xam nga boo jaayut. nga gis kuy jaay. te la muy defar mënoo boo boo boo boo la nit di dàq te jotu la lan la lay def dina lay sànni xeer. noonu la. man man lan nga bëri ku jug rek dóor la xeer. xale yi jaay ñu nag. ay jaay. jaay ñu seen xol neexul. neexul. am na ku ne moom day jaay ay millions de. ku fu mu feeñ ci moom. daal xaalis bu bëri teg ko ci kawam. yor na ay oto. ah da naan ay kalandoo kalandoo. ay kalandoo la yor. ah bon oto man oto bu ma nee yor naa oto damay wane oto yi mu taxaw 4x4 yi taxaw waaye du ma gàddu ay kalandoo mbot nga xam ne suñu jamonoy maam Senghor la woon nga ñëw taxaw naan damaa yor ay oto lan mooy oto uwe la maal. waaw maam Youssou daf la may oto. Youssou Ndour ma daa am benn sëriñ bu génnoon mu ne Mame Ndiaye Savon fekk man ñaari oto laa yor bu noir ak bu rouge euh, daam sëriñ bu génn mu ne maam Ndiaye Savon bu ma sañoon mu changé oto bu noir bi def ko oto bu weex léegi nag ba sëriñ bi waxee lool tombeek ñu may invité TFM ma daa dem di jëndi oto ma waxaale lool parce que dama doon bañ a jënd oto nit ñi naan kii amul conseil dafa yàq xaalis nañu xool ni mi def moo tax ma jaarale ko ci Youssou man maa jënd oto bi lu rafet dama ragal non dama ragal woon comme nit ñi li ñuy wax blouse bi sax am na ku koy waxaale pour ma jaay ko ko ma yor ñaar yàlla yaana ndeysaan mais maam sa rakk sa doom sa xarit ndeysaan léegi mu def ay témoignages yu am solo ci yow muy maman bi Bulgaria nekk sa ginnaaw wax dëgg fa neex yàlla sonn nga ci mbir mi liggéey bi rawatina jaay bi mi jaay ci foire bi maman sama xarit la sama doom la sénégalais ñoo xamul waaye moom xam na man xam naa euh, sama digganteeg ma moom sama digganteeg moom man ak moom la engagé boo gisee ñaari nit dem ñu jote wax ca lu baax wala nga taxaw ci taxaw bu baax wala nga jéem leen a jubale ak ñu mënta bàyyante dañuy ànd te yàlla tax maman man maa yaayam li mu nàmp loolu la tàqamti ko te lii la nàmp te day liggéey moom en tout cas daal bi li muy rëy rëy man rek jaay uwee la maal maay jaay uwee la maal amal jàmm maam kontaan Bienvenue à toutes et à tous ñu ngi fii ba tey ci foire bi Mamy Events moo woote mami suppi ñëw indi ay bagages yu ñu doy waar mais mami mais namoon nañ la daa may nga nag ma xaw a fan laa <laughs> daa may nag ma xaw a fan waale de waaw dëgg la parce que yaa ngi fi borom marque yu baax mm-hmm. d'accord alors mën nga ñu wax tuuti sa début maanaam ba ngay commencé ba fi nga yegg si tey ah, metti woon na daal mais ba tey sax pour man maa ngi ci début mm-hmm. parce que comme sama objectif li ma bëgg a sama objectif li ma bëgg a pour man sax yeggaguma fa kiiwaguma sax mu moitié bi pour man ba tey maa ngi ci début daal. xale bu ndaw ubbi place di jaay lu doy waar. alors debut bi dañuy expliquer lan nga doon def tey wa ngay jaay. début bi dama nekkoon Maroc di jàng nekk étudiante après di jënd ay bagages yu ndaw di ko jaay su may ñëw vacances après au fur et à mesure may dem di jënd ay bagages ci di ko jaay dem ba ci biir a biir ma commencé. teg jàng bi. concentré <laughs> si jaay mais teewul nag jàng naa ba master. après ma gën a concentré wu si jaay parce que ñëpp si style lañ ma xamee. moo tax ba ma commencé depuis loolu maa ngi dox. waaw léegi ba ma commencé jaay nag après ñëpp di ma ne yaa ngi doog a dugg ci sa milieu. après ma gis si sama bopp santé ci sama bopp ma nekk ci. moo tax Sénégal lépp lu ñu woote ma xamante ne war naa cee mun a bokk wala jigéen ñi ñoo woote rek pour man war naa cee mun a bokk quoi. maanaam li ngay jaay du duy xeesal. non non du duy xeesal. différence entre teint noir ak teint clair maanaam kii xeesal ak koo xam ne xeesalul. ñëpp laay jaay man ci lii laa woote. ah li ngay jaay foo ñuy wax ci. Ah, ñuul kukk ngay jaay. ñuul kukk laa. maanaam xeesal baaxul ay diw yooyu noonu. maanaam xeesal baaxul. Ah, diw yooyu daal auditeurs moom jaayu ma ko man. diw yi am lan auditeurs <laughs> beaucoup lii laa xam marque laa xam moom laay jaay. marque ngay xam moom ngay jaay. chez Mami Style la. la qualité et l'originalité sont au rendez-vous. waaw loolu laa woote. lay wax sa clientèle. ah sama clientèle xam nañ xanaa ñu ma jotut a xam. mais sama clientèle xam na ne man ci lu baax laay dox ci marque laay dox. parce que déjà man balaa ma jaay ba pare maa ko njëkk a sol. waaw sama client ci man la ñuy roy moo tax ku ma jaay wala utal la modèle ku jënd ci.